HLM marché bi daan na gën a xumb nii ci waxtu wi nga xam ne ñaar fukki fan rek a des ci tabaski bi. daanaka matatu ko sax instant bi kay ay 18 jours moo des ci tabaski bi bagage yaa ngi nii même ñi ñuy jaay bagage sax seen arrivage yi wàccagut. maanaam semaine bee sax ci lañ waroon commencé mais manifesté yi moom moo taxoon quoi ñun ñu xawoon kii quoi ragal quoi. fii yëpp étagère laa koy def dama koy sax sax daal ba mu fees heure bi daana fekk ñu tàmbali lu yàgg sax. parce que ñun dañ doon defee fii un mois ferme ci tabaski bi. client yi tamit raar nañu lool. kenn ñëwut ay benn benn daal ñoo ñëw dañoo tiit sax ci événement bi ndax événement bu toll ni tabaski moos mun ñoo gis kenn di toog di xaar rek ñu bëri nag xëy na dañoo ñemew ñu génn. namm nañu marché bi na mu daan xumbee ci jamono yii. mais nag heure bi daana fekk moom wax dëgg yàlla gaa yi teg sono yi matériel yi xam nga. seenaam si gars yi ku nekk di yëngal pour clients yi am na ñoo xam loolu moo leen di bégal ndax heure bi daan fekk ñu tàmbali natt yi bu yàgg macha allah mairie dagg bu yàgg mais jusqu'à présent daggaguñu place ñoo ngi yii day fees del marché bi nit ñi di mbëkkante lu ëpp si ñoom dañ leen lebal bagage looloo waral ñu ragal mu yàqu parce que maanaam mënoo jël xaalisu jàmbur mënoo jël sa xaalis espèce bu ci pare ah mën na la yàqal wala ñu ñëw taal ko après yow yaay insi étranger yi ñu ci bëri dañ daw mais nag heure bi daana fekk moom wax dëgg yàlla gars yi teg sono yi matériel yi xam nga seenaami si gars yi ku nekk di yëngal pour clients yi am na ñoo xam loolu moo leen di bégal cinq jours six jours yoo xam ne liggéeyuñu da suñu mbaar yi gisoo lépp la ñu daaji lépp a yàqu woon wax dëgg fa yàlla tabaski bi daanaka dikk na ba pare jaaykat yi nekk HLM di ñaan jàmm sax ngir opération tabaski bi gën a neex